damay fàttali euh, contexte bi xam nga am na wax joo xam ni soo ko génnee euh, ci cadre bi ñu ko waxee rek euh, yaa ngi bëgg indi ay te doxalinu seytaane la premier ministre keroog li mu def ak président de la république dañu taaral benn bis boo xam ni suñu doom yaa ko moom moom taaral xam-xam taaral excellence mais contexte bi mu waxee loolu dafa ñëwoon pour euh, gën a bàyyi nopp euh, ñoo xam ni dañu nekk suñuy doom euh, yàlla nattoo leen ak laago mu am yenn école yoo xam ni bëgg nañ ci jànge wante mënuñu fa am accès parce que école bi ni ko bindee wala est-ce que école bi prévoirul xale yu mel noonu mu am yeneen xale yoo xam ni ci daara la ñu màggee ci daara yooyu ñu gis ni te sànq rek am na kenn ku may posé question daara ji lakk ba xale yi dee ci loolu ba ngay gis ni simplement am na état république bi nu muy jëflanteeg daara yi nu muy jëflanteeg xale yi xëy na dañu war a soppi suñu doxalin ba benn xale moo posé question mooy kii amoon euh, euh, benn handicap euh, posé question ni premier ministre lan la xalaat ni état bi ak gouvernement bu bees bi euh, war na euh, def pour mën a changer ñu seen condition mu wax ci lu leer di ne xale ak koo xam ne na toog ko feebar nee na sax ñun ñëpp feebar bis boobu yéen a koy dégg mu ne koo xool koo seetlu xëy na mi ngi sol lunette wala mi ngi sol leneen kon ñun yàlla nattoo nañu feebar wante dañu war a góorgóorlu pour que suñu système éducatif xale noo mënti mel état moom moo war a jël responsabilité jàngal la accompagner la nee na sax bâtiment yi mu nekk bâtiment administratif wala yeneen yu bëri dañ koy tabax te duñu sóoraale suñu doom yu mel noonu après keneen ki tamit posé question dine waa daara yi gis nañ ni jëmm ji ak gëdd joo xam ne waroon nañu ko jox joxuñu ko mu tontu ni war nañ leen déglu war nañ leen jàppale man mii sax suma biir kër lu mel nii maa ngi koy doxal et cetera et cetera ñu nag yéen dañ leen war a toppatoo doomu réew mu ngeen c'est pas parce que da am voile que waroo am accès ci école boo xam ne jàpp nga ni école bu nga bëgg a dem mu ne donc école boo xam ni day tere dina ne kuy porter voile waroo fa dugg kooku jaaduwul wante may wax ni bu ñu seppi wax jooju rek génnee ko parce que sànq maa ngi nettali su mu doom jooju am feebar question du mu posé ça rentrait dans le même cadre kon tontu premier ministre dafa nekk tontu boo xam ni mooy dafa sukkandiku ci constitution suñu constitution yàlla ñu ko baaxee suñu constitution boo xam ni laïcité la moom la mettre en avant suñu borom moo ñu ko may suñu borom moo ñu ko may moo tax fii diine rafet moo tax fii dëkk dëkk fi dafa neex moo tax ñu ràññee ñu àdduna yépp lii tax nag Sénégal am loolu sunu borom ñu ngi ko jaarale ci constitution boo xam ne moom la ñu tëgg Sénégalais yëpp d' accord ci boobu ba léegi ñëpp ñëpp ñëpp d' accord ni constitution bi baax na kon rappeler constitution boobu ni constitution boobu su dee nit ki day sol croix jox ko jëmmam ak gëddam waroo def différence su dee nit ki day sol euh, euh, euh, voile waroo def différence su dee nit ki day sol ay perles waroo def différence mais loolu yaa lu baax su doon benn xale bu sol croix moo nekkoon ci place boobu xale bi nekkoon daara bi nekkoon su ko posé question ni monsieur le premier ministre xale yi sol croix dañ leen di dàq ci yenn école jàpp naa ni képp koo xam ni dëgg rek lay tax wax di nga ne ni même tontu gi lañ fay posé mooy ni amul benn xale du Sénégal parce que lii la gëm parce que jullit la wala chrétien la wala leneen la war nañ ko mën a exclure ci benn école loolu mooy message bi may fàttali ni ñetti fan u ñeent journaliste yi seen bopp gis nañ ma ma dem seeti archevêque bi te man premier ministre moo ni yónni ne demal ci archevêque ba yóbbu na euh, euh, fa pour ñaari mbir benn bi nga sant ko gërëm ko wax ko importance su éducation religieuse wax ko ñun gouvernement bu bees bi daf ko bëgg a jox jëmm gën a jàppale éducation religieuse gën leen jàppale ñaareel bi mooy félicité ko ci performance scolaire boo xam ni école catholique yaa ngi koy def ba pare ci associé ci beneen félicitation boo xam ni euh, cassette yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi mu ne archevêque bi ni nation sénégalaise yëpp lay sant la gërëm ndax esprit école catholique yi ci dañ fay yóbbu seen doom depuis yàgg na xale yi jullit wala famille jullit moom mooy dóor doomam wala jël doomam feneen yóbbu ko ci école catholique boobu ndax ni mu baaxee mu ne donc ñoo ngi ko ciy gërëm te nag li ci gën a doy waar mooy sénégalais di màgg di gis ni mu ci école catholique di gis Jésus di dégg yenn yi di gis seen morom chrétien mu leen di invité Pâques di leen invité Noël xale yi di màggee noonu kooku moom dootoo dugal fitna seen xel xale yooyu dañuy nekk mbokk dañu nekk ay patriotes dañu nekk des concitoyens ba yow yawmitin te loolu moo marqué Sénégal Sénégal ku fi baax lu ci bëri bëri bëri soo jaarul daara ci école yi nga jaar kon président euh, euh, euh, premier ministre daf mu yónni ma dem ci archevêque xaarul ba après lii am de c'est trois quatre jours avant kon ñii di wax dañu doon wax li leen neex wala bëgg yëfu seytaane wala bëgg yëfu politique wante wax ji premier ministre wax moom la war a wax mooy constitution ci ordonnancement juridique moom moo féete kaw règlement intérieur u école warul féete kaw constitution te képp kuy demandé autorisation ni dama bëgg ubbi école da ngay indi ci say aussi benn règlement intérieur te dañ koy saytu xool ndax règlement boobu lépp lu mu bind méngoo na ak constitution su méngoo na constitution dañ lay delloowaat ne la lii c'est pas normal mais loolu du ci école rek presque dans toutes les sphères de la vie de la nation su dee dafa am benn demande booy def ñu laaj la yenn kayit yi dañ ko bëgg a saytu pour xool ndax c'est conforme ou c'est pas conforme kon li mu rappelé noonu li mu rappelé lu baax la te wax tamit ak rappelé loo xam ni même su dee ñenn ñi bëgg nañ ci indi seen gis-gis lu baax la mais une société c'est pas parce que ñëpp nee na que lépp a ngi dox société day marché société day développé wu am na benn phénomène boo xam ne Sénégal ñëpp a koy dund xale jigéen ñi lu ci bëri bokk mu ngi voilé wu waaw su dee ñëpp dañuy voilé wu su yàggee soo waxul lu mel ni premier ministre wax xale bii di sol croix wala jullit boo xam ne nee na moom du voilé wu waaw kooku dañ koy dàq kooku dañu ne kooku du du citoyen loolu le premier ministre waxoon mooy constitution bi pour équilibrer mbir yi pour que simplement kenn ku nekk ci sénégalais yi gis ci boppam et que moom en tant que état en tant que chef du gouvernement dafa war a nekk ci benn neutralité dafa war a nekk comme arbitre boo xam ni waroo far fii waroo far fële li nga war a def mooy di organiser terrain bi pour que nation sénégalaise dans toute sa diversité di màgg di dem moom moo doon donc le sens de la chose am na sànq lañ ma laaj ci tout tout mooy l'abbé euh, euh, euh, André la Ndiaye Euh, euh, li mu wax noonu dam ko ñaawlu parce que euh, moom dafa wax waxu église loolu wane na ni dégluwul yàkkamti na xëy na déglu na ay presse benn presse bopp xëy na déglu na yenn politicien mu gaawantu wante abbé du gaawantu abbé day dal abbé danga war am spiritualité abbé da jëf ak wax pour di rafetal abbé man man man man su ma xeex yëpp man Jésus ak amour ak li mu doon ci ci ci diine chrétienne ak li mu doon ci diine l'islam mais mais c'est l'amour et la particularité la singularité de l'église ak ñuy porter le discours mooy wax ju rafet ja ju ju sell ja kon moom abbé wax ji mu wax wax na wax joo xam ni daf ko génnee cadre am moom abbé wax na wax joo xam ni leneen la lu dul euh, euh, c'est différent de premier ministre mu waxoon lii premier ministre wax daf ko war a dëggal mooy xale chrétien bi dañ ko war a protéger xale jullit bi dañ ko war a protéger xale jullit boo xam ne du porte voile dañ ko war a protéger moom la wax wante wax ji dafa dëgër trop et puis dafa démesuré par rapport en fait au débat boo xam ne am nañ ko te débat bi dañ ko war a am parce que ci marsu nation sénégalaise la bokk euh, dafa am évolution boo xam ni te may jeexalee fenn mooy la tenue est différente du comportement la tenue ce n'est pas le comportement fële nag euh, réewu gaañu tubaab ya ci kaw ñoom dañu dem traumatiser ak loo xam ne ñoom ñoo koy dund foofu ba ils confondent tenue et comportement suñu gisee le voile donc une tenue ñu jàpp ne le comportement mooy après l'explosion d'une bombe donc ñoom se mbir la foofu mais la tenue nous savons ce que c'est porter un voile porter lu gudd lu et cetera xam nañ lan lan mooy donc importer wax ju mel noonu ba mu nekk benn phobie boo xam ni euh, phobie yi nga koy indi mu lay tiital non waruñu tiital donc jullit yi waruñu tiit chrétien warul tiit c'est une nation boo xam ni qui a une longue tradition nous sommes ensemble kenn du ñu diviser nous sommes ensemble c'est une nation qui est formidable et encore une fois le débat qui a été posé, c'était un débat de règlement intérieur. Ce n'est pas un débat, débat, de chapelle ou d'église ou de mosquée. Ne ko gars yi ne ko simplement ci euh, euh, proportion yoo xam ne moom la mooy débat wu règlement intérieur un règlement intérieur il est bon il n'est pas bon et cetera niveau du ministère.